yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi. asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taalaa wa barakaatuh mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu nu bokkal diaspora bi yëpp rawatina waa Touba Espagne ak fédération bi ak mboolem ñiy liggéey ci Muxaddamatul Xidma ñuy jottil ay kàddu yoo xam ne mi ngi jóge ci sunu jëwriñ Serigne Assane Diop mu xadimatul xidma muy liggéey bi nga xam ne dañ koo bokk muy liggéeyub jumaa ji di liggéeyub euh, mu xadimatul xidma ci bitim réew sëñ Assane sëñ Assane Diop di bi ànd ak ñun ci liggéey bi ci jamono yu méttee métti bokk nañu xam ne liggéey bi mi ngi sosu ci jamono jamonoy Serigne Saliou Mbacké ñëw ci alaaji Baara moom Cheikh Abdou Fadal mu defal nu ci xaas muy dox ba agsi ci sëñ Sidi Mokhtar dox ba agsi ci Serigne Mountakha mu baax mi nga xam ne am na jamono boo xam ne bi ñu indee bagage yi jële ko Espagne indi ko moom moo ñëw fii teeru conteneur bi e, sargal nu ñaanal nu ba noppi ànd ak ñun liggéey bi tey jii muy Cheikhul Khadim ñu koy ñaan mu yàgg fi te wér Serigne Assane liggéey bi di dox jamono yi korona yi yi crise bi ñëwee ay jamono liggéey bi xat e, dëkk yu bari yu ñu daan am ay xéewal xéewal yi xaw faa néew doole ñu daal di takk suñuy laxasaay doon ay ay ay ñeenti jëwriñ yoo xam ne eh, sëriñ euh, Modou mbub sëriñ bay Fall Diagne sëriñ Assane Diop Baye Ibrahima Lo Xasida ñu ànd dugg isla di di di liggéey liggéey bi ba mbokki taalibe yu bëree bëri xam liggéey bi tàbbi ci waaye loolu lim liñ ko def def ci sunu jaayanteeg bopp mu ngi yaatoo dëgg-dëgg ci ndimbalul sëriñ Mamoor Mbàkke mu Cheikh Mamadou Mourtada moom moo ñëw ñu leeral ko liggéey bi mu ànd ak loon def tournée Espagne liggéey bi muy liggéeyal sëñ Touba fu mu fu mu dem mu jox kàddu mu xaddimatul xidma ñu leeral daayira bi ba mbokki taalibe yi ak jëwriñu daayira yi mën a xam dëgg-dëgg daayira bi lan mooy taxawaayam ba tey jii ñëpp di ci dox. léegi nag loolu bi mu amee ba tey jii fii nu toll ñu ubbi beneen plateforme bu bees mooy def association boo xam ne mu xaddimatul xidma ci Espagne nationale ba yëpp dafay dox doxin woo xam ne loolu mucc na ayib moo tax ñu ubbi benn compte boo xam ne ci La banque lañ ko ubbi sëñ Assane wax ne compte googu noonu. dañ koo def ngir gën a mën a jege taalibe yi gën a mën a jàppandal mbokki taalibe yi képp koo xam te ne maanaam sa liggéey dafa xat ba xëy na doo dem ci daayira yi ba mën a dégg soññe bi ak ndigal li niñ koy jëfee bu boobaa yow di nga mën a jaar ci biir maanaam compte googu mën cee dugal sa addiya am na ñoo xam ne tàmbali nañ koo def yéen am na jëmm yoo xam ne sasoon nañ weer wu dee ñu joxe 30 euros wala 10 euros wala lañ man te di ko jaar ci compte gi ndax xëy na seen liggéeyuwaay moo waral mënuñoo dem ci daayira yi daayira yi tamit am na ci seen biir ñoo xam ne nosu nañ nosu goo xam ne dañ koo saxal duñ xaar rek ba koor jot ndax bu fekkee da bëgg xaar ba koor jot nga ne dama bëgg lu ma yóbbu période bi ñu toll moo di yu bëri ñibbisi nañu hiver lay tombeel ñu bëree bari seeni i daayira ña fay nekk du am solo lool bu ko defee nag bu fa bëggee jëlee addiya man naa am nañ ko bëggee woon ni li murit baaxoo def mooy loo joxee ren bu déwénee nga yokk ko du jàppandee noonu ci ñoom moo waral ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy informer ci yenn daayira yi nga xam ne ñoom dañ koo saxal annuellement maanaam nga xam ne dañuy am benn doxalin wu ñuy doxal woo xam ne chaque weer ñu joxe wenn carte ne nangam nga ciy joxe wala chaque daayira ñu ne nangam la nit du joxe ci Moukhaddamatoul Khidma loolu tax na ñoom ñëpp ñu am ay tawféex yoo xam ne ñu ñu mat a roy lañu bun bun buñ ko sañoon dañuy tudd ay daayira waaye loolu jamono moo ko maywut waaye daal lu mata a roy la su ko defee nag individuel yi nga xam ne nag ñoom dañoo dañuy jaar nag ci plateforme bi muy compte La Caixa bi loolu moom tawféex la joo xam ne ñëpp nañ xam ne fu waaye a nekk ci àdduna bi rawatina Touba Espagne mu Muxaddamatul Xidma am na compte goo xam ne sa CaixaBank la foo mën a toll mën nga caa dugal mën ngaa bisi mën ngaa def lépp sa addi agsi te loolu rek mooy liggéey bi loolu lañ ci bëggoon a leeral ci ndigal Serigne Assane Diop moom bu ko dégloo dina xam ne li mu nu santoon buñ ko munta defee ni ñu ko bëgg a defee tamit euh, wax nañ ci loo xam ne rek ndax ñoo ko fi teewal ndax noo bokk liggéey bi e, am nay jamono. Euh, jumaa ji indi nañ fi ñaari oto yoo xam ne ci maxadimatul xidma yàlla dogal na man ak moom ñoo ànd dawale ko Espagne ba fii keroog bi ma dawalee oto bi ba dugal ko fii ñu ubbil ma bunt bii ma jaar ci dugg bi ma duggee ci jumaa ji damaa daanub jël ndax li tax ma def ko mooy damaa xam ne bu doon sama jëmmi bopp rek duñ ma ubbil buntu jumaa ji ma ci jaarale bi oto waaye oto bi sëñ Tuubaa bi ma jëlee Espagne ba fii indi ko indil ko jumaa ji ngir mu yóbbu imam yi loolu moo waral ma am taw tawféexi ñu ubbi di ma xàllal may jàll kon liggéeyal Serigne Touba rek moo am njëriñ yàlla nu ci yàlla saxal te nangul lu liggéey bi te yàggal Cheikh Mountakha ñu yàgg ko ànd ak moom waaxiru dafee ne alhamdulillahi rabbil alamin jërëjëf yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa